mais sénégalais buñ jangone si cheikh amar doraga gay du Syekh cheikh amar était là yalla defal ko teranga way kat di ko way mu nek nit ku bax nek talib sëñ saliw sénégal ño bon ci ku ñak ak ku nek ay jafe-jafe cheikh amar limuy dund guddi mérito ko tay kan nga dégg mu way cheikh amar tay ban kat nga dégg mu né cheikh amar té pourtant cheikh amar il a beaucoup fait dans ce pays ak ci yoonu mouride sa situation lu mu metti la ci sama xol Doro gay mii waroon na jàng ci Cheikh Amar Sénégal boo amee ñu ànd ak yow di la woy di la xalamal boo ñàkkee yaa gën a bon ci askan léegi nag Doro Gueye waykat ya ko daan woy ak doomu Macky Sall ak Marème Faye Sall rëbës metti na te tàng na bëri na yoo bëri na mbóot bëri na kaña léegi nañ dem yóbbul ko añ ak reer ci kaso lii mooy Sénégal lii la Macky Sall bàyyi ci réew Doro Gueye dem escroquer ay doomu aadama ci ab titre foncier xool dem jëm na sax ndax Mame Boye jaw mais man bañ waa APR du tax may sosal nit de. Hmm. Mame Boye jaw il est de bonne foi ne ko man këyit yéen ma indil nii pour ma signé ko dara laa signé wul tant président woowu ma téléphone ne Mame Boye signé far yàlla ñu jële fi Mame Boye jaw keneen ka ñëw ba mu ñëwee moo yombalal Dora Gaye Dora Gaye mbir ñu di ko Mamadou Gueye Mamadou Gueye ñuy toppee Dora Gaye ñaata un milliard mille millions de francs CFA léegi nag Dora Gaye Amadou Sall Doro Gaye mooy nekk kii tax ñu jàpp Farba Ngom Doro Gaye mooy fekk ki nga xam ne mooy mooy gën a diisal dossier Macky Sall parce que man enquête bi ci li ma ci xam fork ci weewu bëy hmm. bu ñu demee ba si kanam tuuti yuuxu moo tax nañu tëj aéroport yi tëj frontières yi yuuxu dina jëm fuñ ko fogewul si lu ñu gis si portable Doro loo xam ne mënu ma ko révéler fii pour bañ yàq piste wu enquêteurs loo xam ne si téléphone am moom ak Bah Diakhaté seen téléphone moo leen rey moo leen rey ba ñu dee te ay dignitaires yu mag ci ancien régime bi ñoom ñëpp dañ doon job ak Doro Gaye ci wàllu foncier bi par foncier bi moo gaawam def nit milliardaire ci réew moo la mën a may alal yow nit lay may morsa morsa titre foncier Dakar léegi nga jaay ko cinquante millions cinquante millions xaalis la man de bu ma ko amoon mën naa ci dund ba dee noonu lañ doon enrichir seeni i nit léegi nag ki doon doon jaayal terrain yi parce que ñoom dañuy xool dakaar génne carte bi xool xam ne zone bii nii leer na mën nañ ko dóor ñu dóor ko en complicité ak ñenn ñi nga xam ne am nañu pàcc ci terrain yooyu noonu seen i nit voilà ce qui s'est mais Doro Gaye amul entreprise Doro Gaye bokkul ci patronat Doro Gaye mënoo dem Dakar ñu ne la fii mooy bureau te loolu journaliste yi dañu war a yee sénégalais yi lan moo xew defal ndàgg la Doro Gaye bi Ousmane Sonko jàpp ko de man damay leeral Sénégalais balaa ñuy def ne naan nag xam nga Bah Diakhaté boppam Ousmane Sonko plainte Bassirou Diomaye Faye plainte si le procureur moo am pouvoir auto saisir moo ne baajaxate Diakhaté li mu wax dafa ëpp man procureur maa ko jàppalu te procureur bi fi nekk may fàttali ne mooy procureur Macky Sall ak commissaire bi ne dikk ñoom ñëpp ay nitu Macky Sall lañ ñooy yeggale liggéey bi loolu foog mu leer kon ba léegi. Ousmane Sonko loxo mu ngi ci biir waaw wala déet Doro Gaye bi Ousmane Sonko plainte wu Bassirou Diomaye Faye plainte wu a Gaye ab sénégalais moo ko porté plainte ni moom sénégalais boobu bu bu bu bu yëgee ne dafa subir préjudice mais day dem saisir yoon lool il faut que ça soit très très très